وأقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ yàlla mi nga xam ne mooy mooy ki màgg ki ñëpp soxlaal te soxlaalul kenn dara yàlla mi nga xam ne jurul kenn kenn juru ko yàlla mi nga xam ne kenn tolloowut ak moom ci lenn ci dara di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku moom amul lenn lu ñu koy bokkaaleel di seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la yonentam la di seede ne yonent yàlla isa alayhi salaam jaamu yàlla la yonent bi yàlla la gën na loolu mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ci jëfe ay digleem bàyyi ay tereem mbokk yi ci fan yi ñu nekk jaadu na jullit bi càmbaraat révisé waat xoolaat tuuti yóornduwaat pas-pasu julit ci yonent yàlla isa alayhi salaam ba ca jiitu mooy isa alayhi salaam jaamu yàlla la amul lenn lu mu jagoo loo xam ne mbirum yàlla la du ci yàlla nekk gim nekk yàlla walla jaamu gi ñuy jaamu yàlla suñu borom nee ne nee na in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani israil nee na isa nekk lu dul benn jaam boo xam ne maa def samay xéewal ci moom ba pare defoon ko mu nekk exemple nekk ku baax nekk royukaay nekk njiit ci waa banu israil ci waa banu israil borom bi dellu waxaat ni yow muhammad fàttalikul euh, bi nga xamee ne isa bnu maryam wax na aw nitam ne leen ndax yéen yéen a ma jàppee ma ak sama yaay def ñu ñaari yàlla bàyyi fi yàlla ah yàlla man de nekkuma lu dul loo xam ni la ma leen waxoon mooy dëgg mooy li nga ma waxoon te su fekkee maa leen wax ne yàlla laa yow xam nga xam nga li ci man te xaw ma li nekk ci yow yow yaay ki nga xam ne yaa xam kumpa yaa xam lu ñëwagul ñaareel bi isa doom la boo xam ne nit a ko jur mu am yaay te amul baay comme ni nga xamee ne aadama suñu boroom moo ko bind aadama moom am amul ndey amul baay suñu boroom moo ko bind ci suuf loolu moo tax koo xam ne isa ni ko yàlla bindee moo la yéem isa au moins am na yaay aadama moo gën a yéeme parce que amul ndey amul baay moo tax boroom xam-xam ñu ne suñu boroom doomu aadama yi mu bind yëpp ci ñeenti façon yi la leen bindee ki njëkk ki mooy ku amul ndey amul baay mooy sunu maam aadama keneen ki mooy koo xam ni euh, amul ndey waaye am na baay mooy xawa mi su mi nga xam ni sunu borom mi ngi ko bind ci faaru aadama ñetteel bi mooy ki nga xam ni amul baay waaye am na ndey mooy isa alayhi salaam ku nekkul ñett ñii rek da ngaa des ci alqaida al amma muy règle générale bi mooy am nga ndey ak baay ak koo mënti doon garaat bu la nit ñi mënti jox ak lu ñu la mën a takkal am nga ndey ak baay ñett ñi rek ñoo génn règle bi ku dul ñoom ci ndey ak baay nga juddoo loolu moo tax isa alayhi salaam sunu borom mu ni yéen waa ahlul kitaab ngalawaay bu leen ëppal ci seen diine laa taxlu fi diinikum waaye wala taqulu ala allahi illa alxaq bu leen waxal yàlla lu dul dëgg isa doomu mariam yonentub yàlla la du yàlla du doomu yàlla du du xaaju yàlla wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu kàddoom googu nga xam ne yàlla moom la sànni ci maryam muy baatu kun bi nga xam ne ci la ko yàlla amale moom isa yàlla noonu la ko sàkkee ruu la ci ruuy yàlla bint isa ruu la ci ruuy yàlla bint borom bi dellu waxaat ni xam leen ne misaalu isa fa yàlla dafa mel ni misaalu aadama suñu borom dafa bind aadama ci dara xanaa loolu moo gën a diis moo gën a foor dafa bind aadama ci li nga xam ne mooy suuf ginnaaw bi mu ko amalee na ko amal mu daal di am ñetteel bi mooy isa alayhi salaam yaayam di maryam ku set la ku laab la jaamukatu yàlla la du rag ku ragal yàlla la du njaalokat du taxawaalukat comme ni nga xamee ne juif yi noonu lañ ko accusé maryam bi nga xamee ne indi na isa am ko ñoom dañ ne ko yow maryam sa papa doon toon nit ku bon sa yaay nekkutoon taxawaalukat ndeke yow jàkke ji li nga fi nekk lépp ne danga nga jagleel sa bopp jaamu yàlla nga def lii fa asharat ilayhi mariam joxoñ ci joxoñ xale bi ñu ne ko kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya ku nekk ci li nga xam ne mooy euh, xale boo xam ne ci biir soo nekk nu ñuy wax ak moom isa lam njëkk a wax dana inni abdullahi kon musul wax na yàlla la dane do man jaamu yàlla la kon loolu isa mos a wax beneen bi mooy mariam sunu borom dani fàttalikul mariam doomu imran mariam doomu imran ni nga xamee ni dafa sangewu protéger boppam sàmm boppam fooyul boppam yàlla mun a ñu wal ci moom suñu ruu fa nafax naa fiihi min ruuxina ñu wal ci moom suñu ruu Maryam moomu dëggal li nga xam ni mooy suñuy kàddu dëggal boromam ak ay téeréem ba pare bokk ci ñi ragal yàlla ñu toroxlul yàlla topp yàlla ragal yàlla ñeenteel bi mooy Isa yonent yàlla la ci lu wér te julit ñi kenn gënu leen cee yey comme ni ko yonent bi alayhi salaam waxee woon nasaraanu najraan isa yàlla mi ngi nettali Maryam ak isa seen histoire ci ñaari saar ci alquran ci la ko gën a nettali bii mooy suratu ali imran verset 1 ba verset 83 ci ali imran euh, li nga xam ne mooy nasaraan yi nekkoon ci najran dañoo ñëw ci juróom-ñeenteelu atu gàddaay gi ci jàkk yonent bi yonent bi recevoir leen ci jàkka ji ba tax na loolu indi na xilaaf ci borom xam-xam yi lan moo tax yonent bi recevoir ay chrétien ci biir jàkka ji ndax chrétien mën nañ ko recevoir ci ko recevoir borom xam fiq yi wute ci yonent bi alayhi salatu ci jàkka ji ñu koy posé ay question mu leen di tontu am question yu ñu ko posé yonent bi amul tontu mu noppi yàlla yónni jibril jox ko surat ali imran verset 1 ba 83 yàlla di ci tontu chrétien yooyu doon posé yonent bi alayhi salatu salaam laaj yooyu yàlla tontu ko ci surat ali imran beneen mooy suratu mariam bi nga xam ni moom la suñu borom tuddee yaayu Isa di Maryam ci ñaari saar yi ci la yàlla gën a détaillé gën a leeral trop histoire Maryam ak Isa alayhim assalaam loolu moo tax sunu borom ni yéen waa ahlul kitaab ngalawaay bu leen dew ci seen diine te bu leen waxal yàlla du dul dëgg Isa ibnu Maryam yonent yàlla kese la mu dellu waxaat moom borom bi ba tey ni mal masih ibnu Maryama illa rasul Isa nekkul lu dul yonentu dong yonentu kese te jiitu woon fi ay yonent ku dëgg woon la àggoon na ci daraja siddiqa nga xam ne moo ñëw gannaaw martabatu nubuwa ñoom ñaar dañ daan lekk ñam pour wañu ne ay nit lañ parce que yàlla du lekk yàlla mu ne xoolal ñi ma leen di leeralee samay aaya waaye ànd ak loolu dañuy féttéerlu daal di koy weddi ba pare dem di sos juróomeel bi mooy isa ci yonent yu màgg yi la bokk ñi ñu tuddee ulul azmi muy juróomu yonent yooyu nga xam ne mooy yonent yàlla nuux yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa yonent yàlla isa yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu alayhimu salaatu wa salaam borom bi mu ne wa is axasna min annabiyina misaaqahum fàttalikul bi ñuy jël kóllëre doyalante ge ci yonante ye tàmbalee ko ci yow wa min ko yow Muhammad wa min nuuxin jël ko ci nuux wa Ibrahima wa Moussa jël ko ci Ibrahima ak Moussa wa Isa bni Maryam jël ko ci Isa bni Maryam mu nekk dox doyalante boo xam ne bu dëgër la bu tar la juróom-benneel bi mooy sunu borom leeral na feeñal na ci Isa jox ko ay kéemtaan yoo xam ne Isa. jommale leen ko aw nitam waar na leen ca jaaxal na leen ca bokk na ci mooy dekkal ku dee dekkal ku dee ci lu alxuraan nettali Isaa lañ gis yàlla may ko waar boobu muy dekkal ku faatu buñ ko wanee néew bi Isaa bu ñëwee tiim ko wax li muy wax néew bi jóg waaye ki nga xam ni mooy ku muuma Isaa mën ko wax loo ku gumba Isaa mën ko gis gisloo waaye yemu fa Isaa di leen xibaar lañ denc seeni kër kenn ku nekk boo ñëwee Isaa mën na laa wax seen kër lan lañ fa denc ñam biñ togg tey lan la lan ngeen denc seen kër ci ay bagage ak lu mënti doon Isa mën na ci jaar waaye yemu fa day jël picc defar ko ci ban wala nit defar picc ci ban jox ko ko Isa ëf ko bàyyi mu naaw mu doon picc dëggantaan daa di naaw mel ni picc bu yàlla bind loola lépp da ko doon def waaye ci ndigalal borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ni ubrihul akmaha wal abrasa wa uxil mawta waaye bi iznillah danaa dekkal ku faatu danaa waxloo koo xam ni ku muuma la dana faj koo xam ne dafa amee feebaru ngaana waaye nag lépp ci ndigalal yàlla laa koy defee juróom-ñaareel bi mooy isa dafa woo aw nitam ci ñu wéetal yàlla màggal yàlla bañ a bokkaale yàlla mu woo leen ci pas-pas bu wér woo leen ci ay jikko yu baax mu waxoon leen ne inna allaha rabbi wa rabbukum faabuduhu haza siratun mustaqim yàllaay sama boroom mooy seen boroom jaamu leen ko wéetal ko lii mooy yoon wu jub bi isa santu leen leneen beneen bi mooy ñoom jàppee nañ seeni boroom xam-xam ak seen jaamukatu yàlla ya def leen yàlla bàyyi fi yàlla ak isa def ko yàlla bàyyi fi yàlla yàlla mu ne te kenn digalu leen loolu li ñu leen digaloon mooy nañ jaamu yàlla moom kese wéetal ko bañ koo bokkaale ak dara te sellal ko yàlla mu ne ñoom dañoo bëgg a fay leeru yàlla gi maanaam diineem ci seen i làmmiñ ak seen i xalima waaye yàlla bañ na te day matal li nga xam ne mooy leeram gi donte yéeféer yi bañ nañ juróom-ñetteel bi mbokk yi mooy isa ci boppam laata mu fiy jógee xibaar na ni am na yonent buy ñëw ginnaawam borom xam-xam histoire yeeg yépp ak euh, kat yi dëppoo nañ ne isa moo yonent bu yàlla mujjee yónni ci banu israil wa rasulan ila bani israil la yàlla wax ginnaaw isa amul beneen yeneentu bu dox diggante yonent yàlla isa ak yonent yàlla muhammad comme ni ko yonent bi alayhi salatu wasallam waxee ci beneen xadis mu ne sama digganteeg isa yonentu doxu fi sama digganteeg isa benn yonentu doxu fi moo tax isa dafa maa joxoñ laata muy dem mu ne man maay ñëw ginnaawam kon isa wax na ko aw nitam xibaar na leen loola waaye dañoo jàppoon ni yonent bi leen Isa di wax buy ñëw ci banu Israil lay bokk yonent bi ñëw bokkul ci banu Israil mu doonub arab ñoom ñu ne duñ ko gëm parce que bokkul seen xeet ñu rejeté mission bañ koo topp euh, boole ci euh, di ko diaboliser di wax na doo yonent bu yàlla yoon yónni kon loolu mooy li nga xam ni mooy li am Isa waxoon na kon ne wa mubashiran bi rasuli dama leen di bégal yonent boo xam dina ñëw sama ginnaaw yaati min baadi ismuhu Ahmad mu ngi ñëw sama ginnaaw te turam mooy Ahmad te loolu leer na ci injil ñoom bi ñor muy seen livre yu ñu yor yi nga xam ne dañu ko tasaare lu bëri muy injilu Mata ak Bernabe yax ñëw na ci tuddee yonent yàlla Muhammad liit ci làkk hébreu liit borom xam-xam yu mag yëpp biñ ko xoolee. Cheikh Safiyu Rahmaanil Mubaarak Fuuri nga xam ne yàlla may na ko dégg làkk woowa nee na boo ko xoolee tur woowu li muy tolloog ci làkku araab mooy Ahmad Muhammad Mahmoud Hamid ne loolu lay tollool kon leer na ne kon loola tur la woo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam lañ ci jublu mbokk yi. bokk na ci liñ war a fas ci isa alayhi salaam ñun jullit ni te duñ ci caaxaan mu doon pas-pas bu wér ci ñun mooy isa alayhi salaam kenn daaju ko kenn crucifié wu ko kenn reyu ko loolu nañ ko gëm malheureusement tey ñu bëri ci jullit ñi yóbbaale nañ leen ñu jàpp ne isa dañ koo daaj jàpp ne isa moom la ñu rey période bi ñu nekk nii nga xam ne Noël yi jege na 25 décembre mi ngi ñëw ay film dinañ ko commencé jàll ci isa film yoo xam ne ci làkk arabe lañ ko defar film yoo xam ne ci làkk français la film yoo xam ne ci làkk wolof la film yoo xam ne ci làkk pël la film yoo xam ne ci làkku séeréer yépp di wax ci isa alayhi salaam di jàngal nit ñi ñoom pas-pas bañ gëm ci isa suñuy doom ñun suñuy njaboot ñun jullit ñi ñu leen koy transmettre ñu koy gëmee noonu isa alayhi salaam te ñun suñu téere muy alquran suñu diinee dafa am nu mu jàngalee isa xam nga ni doo mës a gis ñun jullit ñi suñ diine dafa gën a mat gën a général doo gis mukk benn juif bu ñëw naan ñu lu tax gëmu leen Moussa ñun gëm nañ Moussa doo mës a gis benn chrétien bu ñëw naan ñu suñ problème ak yéen mooy gëmu leen Isa ñun ñoo leen gën a gëm Isa alayhi salaam mais ñoom ñoo gëmul suñu yonant Muhammad ñoom ñoo gëmul suñu yonant ñun gëm nañ seen yonant gëm seen i téere gëm seen i diine ànd ak ne dañoo gëm ne am na lu ñu ca changé waaye ñoom ñoo gëmul suñu yonant kon suñu diine moo gën a mat gënuñu ñoo yey ci Isa waaye nag isaa lañ koy gëmee moo ni ko al alquran waxee kenn rayu ko kenn daaju ko borom bi mu ne déglul seen wax ja ñu naan inna qatala almasiha isa bna maryam naan isa de ñun rey nañ ko faat nañ ko nan lañ def lu maaw tafsir nee nañ ki nga xam ne mooy euh, yahuud yi ñoom ci seen bopp bi nga xamee ne Isa feeñ na jaaxal leen te amuñu doole dañoo daw dañoo daw dem ci buuru romain yi parce que romain yi ñoo amoon doole ñu ne ko am na xale bu feeñ ci suñu biir te am na ay xar baax yu ne ci moom soo teelul jóg ci moom sa nguur lay nangu te buur li mu gën a bañ mooy ku ñëw nangu nguuram loola lañ tiitalee buuru romain yi buur ba yónni ay nit pour ñu jàpp Isa jëm koo fe jëm koo fexeel Isa bi mu yëgee loolu ci la wàññi ak feeñam ba suñu borom subhanahu wa taala daal di ko yëkkati yóbbu ko jël ku nuroog moom ulama tafsir yi Bagawi ak Ibnu Kasir ñu ne waaja ma nga tudd Yahuza kooku lañ jël mu nuroog Isa ñu jàpp ko daal di koy daaj daal di jàpp ne Isa lañ daaj moom lañ rey beneen bi mooy tanaaqudaat contradiction yi métti yu ci am parce que bu fekkee da nga ne Isa li ko taxoon a ñëw ci diine chrétien mooy sauver l'humanité mooy dafa ñëw pour sauver humanité bi waaw ku mënta sauver boppam ku mënta sauver boppam ñu jàpp ko daaj loxo ndeyjoor daaj loxo càmmoon daaj jëbi takk tànk yi boole daaj ko mënul rëcc ku mënta sauver boppam nu muy sauver àdduna loolu benn la beneen bi yow soo nee doomu yàlla la léegi dangaa ngaa war a nangu ne doomu yàlla war naa mën li yàlla mën parce que doomu nit day mën li nit mën doomu xar day mën li xar mën doomu béy sax day mën li béy mën yoo bi naaw sax doomu yoo day mën li yoo mën wala déet waaw mën li yàlla mën léegi yàlla bu mag bi yàlla bi ñu xam muy yàlla bu dëgg-dëgg yàlla yàlla moom kenn mënu koo jàpp kenn amul ci moom accès kenn mënta àgg ci moom kon kay bu fekkoon ne Isa doomu yàlla la melokaan googu war naa ne ci moom Isa kon waruñu koo jàpp waruñu koo mën a daaj waruñu koo mën a rey yàlla guy dee bu fekkee yàlla day da am yàlla guy dee kooku nekk yàlla gim mu nekk yàlla lu mu ko jëriñ te li ko li ko rey mooy ay nit ñoo ko téye di ko daaj daal di koy rey yàlla goo xam ne ay mbindaa fóonam ñoo koy rey ay doomu aadama ñoo koy rey kooku ak yàlla am amul solo ak yàlla am amul lu mu koy jëriñ parce que yàlla gi mu nekk yàlla mënu ko protéger mënu ko protéger nit ñi mënu ko protéger ci ñu daal di koy rey kon yàlla am googu bëriwul njëriñ loolu moo tax kon loolu ay contradiction la moo tax suñu borom mu ni déglul seen wax ja ne Isa ibnu Maryam rey nañ ko daaj ko dañ koo rey pare daaj ko yàlla mu ne reyuñu ko dañoo dañoo nuro dañoo nurale Isa ak keneen yàlla mu ne lii ngeen di wuute yeneen ciy wuute nekk ci di sikki li ngeen ci topp ci moom yépp ay yaakaar la ay zann la waaye reyu leen ko daaju leen ko ci lu wér ma maa qataluuhu yaqiina reyu leen ko daaju leen ko ci lu wér ba rafaahu llahu ilayhi suñu borom moo ko yëkkati fa moom yàllaa ko yëkkati yàlla moo ko yëkkati yóbbu ko fa mu yëkkati boobu borom xam-xam yi wute nañ ndax faatu dëgg la wala ak nelaw la ci biir borom xam ahlu sunna yi ñaari kuréel daal di ciy wax waaye li wér mooy suñu borom da koo da koo nelawal yóbbu ko parce que baatu baatu wafaat day firi nelaw léeg-léeg am fu muy firi dee kon isa suñu borom da koo yóbbu loolu moo tax ay textes ñëw wane ni dina wàcc ci aaxiru zaman isa dana wàccaat moo tax liñ gëm mooy isa day wàccaat ci aaxiru zaman bu wàccee du indi diine bu bees du indi téere bu bees du indi message bu bees ci shariatu muhammad lay tënk moom isa alayhi salaam day rey lépp loo xam ne mbaam xuux la da koy rey dindi fi lépp loo xam ne euh, croix la da ko fi dindi dindi fi lépp loo xam ne jizya la muy impôt da ko fiy jële mooy rey masiixu dajjal moom moo koy rey ca Palestine jàppalante ci ak ki nga xam ne mooy almahdi comme ni mu ñëwee ci ay nusus ay textes yoo xam ne yu bari la Abu Hurayra ginnaaw loolu nag Isa door a faatu bu faatoo dañ koy suul mu am bàmmeel ci kaw suuf mu dekki ànd ak nit ñi dekki comme ni ñëpp di dekke waaw loolu kon dàq na ne Isa alayhi yàlla ak yàlla la loolu moo tax jullit bi pas-pasam ci Isa ci alxuraan la ko war a jëlee waaye waru koo jëlee ci ay film ak ay documentaire yoo xam ni ay yahuda ko defar wala ay nasaaraan wala ñoo xam ne seeni pas-pas baaxul dañoo am ay objectif ca film ba dafa am lu ñu bëgg a jaalale dafa am lu ñu bëgg a gëmloo nit ki dafa am lu ñu bëgg a raxas ci boppam jox ko lii tey ñu bëree bëri boo leen laajoon Isa loo ci xam seen référence mooy ay film wala ay documentaire mel ni alquran waxul ci Isa mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam ci sunnaam waxul ci Isa te ñu am ci ay textes yoo xam ne yu leer la loolu moo tax jullit bi na éviter di jëlee xam-xamam ci Isa lim ci xam ci ay documentaire rek filmu Isa bay ma seetaanoon Isa nangam te kooku du Isa jegewul Isa lañ fay jàllale amul dara loo xam ne lu dëppoog suñu diine la du alquran du sunna du lu borom xam-xam dëppoo ci jëmm jooju nga xam ne mooy Isa ak yaay mi nga xam ne mooy Maryam mbokk yi jullit bi war na am taxawaay ci li nga xam ne moom mooy feetu yi nga xam ne ñooy feeti yéeféer yi tey jullit ñu bëri sàggan nañ ci lool bàyyeeku ci bal da nga naan julit ñi ñoo dàq feetu ñoo dàq feetu ñu dul julit seeni feet ñoom ñoo ko dàq feetu julit ñi wax dëgg yàlla ñoom gisuñu leen ñuy ñëw di xat-xatloog ñun ci suñuy feetu korite wala ñu ñëw dàq ñoo feetu tabaski mais ñun seeni feet ñoom ñun ñu leen ko dàq feetu ñun bu ñu téye julit ñi buñ téye woon seen morso njaambur jàpp seen morso njaambur ci bés yooyu kenn du yëg ne feet am na mais julit ñi ñoo koy xumbal ñooy feesal tali bi ñooy feesal circulation bi marché yi ñoo koy xatal ñooy ndugg mel ni farata la ci diine mel ni lu mënta ñàkk la alors que loolu suñu diine amu ci cëslaay loolu moo tax suñu diine dafa tere euh, li nga xam ne mooy feetu seeni feet ci ñetti anam bu njëkk bi mooy dafa rot ci suñu diine ay textes yoo xam ne yu wér yuy tere nuru nurulu ak yéeféer yi suñu borom waxoon ne ne ko man de maa la def lii muy sa diine muy sa sariya topp ko bul topp li nga xam ne mooy bànneexu ñeneen ñi nga xam ne xamuñu te ñoom ñëpp xam nañu seen diine li ñuy dund nii lépp boo ko jëlee tey bànneex la beneen bi suñu borom waxoon ko ne ko suñu borom waxoon ci alxuraan ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jàppee yahuud yi ak nasaraan yi ay woy péete parce que ñoom ay woy péete leen ci seen biir ñenn ci ñoom yàlla mu ne képp ku féete ak ñoom ci ñoom laa lay boole te suñu borom du jubal aw nit ñoo xam ne dañuy tooñ Abu Saïd al Xudri mu ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon na ni di ngeen yoonu gaa yi leen jiitu loxoog loxo tànk ak tànk bu fuñ dugg ngeen dugg fa suñ duggoon ci paxu mbëtt sax di ngeen fa dugg saxaaba yi ne ko yonent bi ñooñu ñan la xanaa yahud yi ak nasaraan yi la mu ne sudul ñoom ñan la sudul ñoom sudul ñoom ñan la beneen riwaaya gars yi dañ ko ne xanaa ñooñu romain yi ak perse yi la mu ne ndax ñooñu rekk fi nekk ci aw nit ñu ñu war a topp mu lim tekki mooy jubbu ca ñooña ibnu omar radiallahu anhuma mu ni yonent bi alayhi salaam ne ku nuru nuru aw nit ci ñoom nga bokk ca lañ lay boole rawatina bu fekkee la ngay nuru nurul ak ñoom dafa laal seen diine dafa laal seen pas-pas dafa laal seen i jaamu yàlla ibnul qayim mu ne ci ilaamul muwaqiin mu ne loolu mbóot gi ci nekk mooy nuru nurul ak ñoom ci bitti li muy tekki mooy sa xol ci biir da cee ànd xol bi ci biir bu ci àndutoon ci bitti doo mën a nuroog ñoom te mu ne li ci biir moo gën a garaaw parce que bu demee ba feeñ ci kaw mu ne kon ci biir la jiitu ba pare loolu moo tax ñaareelu ñaareelu euh, euh, ñaareelu aspect bi mooy suñu diine daf ñoo tere ginnaaw bi mu teree ñuy nuru nurul ak ñoo xam ne du ñu jullit généralité bi beneen bi mooy ci biir nurul jullit da cee seppi ñaar ñii muy juif yi ak chrétien yi ak bokkaalekat yi yonente bi alayhi salatu salaam lu jiitu juróomi fan muy wujji boromam euh, jundub ibnu abdillahi al bajali nee na yonente bi alayhi dafa ñoo woo ba ñëw mu ne xanaa xamu leen gaa yi leen jiitu woon dañoo jàppee woon seen bàmmeelu yonent ya dañ kaa jàppee woon ay jàkka dañ kaa jàppee woon ay jàkk maa ngi leen koy tere gaa yi leen jiitu woon ñi mu jublu mooy juif yi ak yi bu leen mel ni ñoom bu leen nuru nurul ak ñoom ci loolu bu leen ko def tey jullit ñaa ngi koy def beneen bi mooy ibnu omar nee na wala ñetteelu aspect bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñoo tere ñuy leen di toppandoo ci loo xam ne dafa laal dafa laal seen mbirum feet loo xam ne dafa laal seen mbirum feet suñu yonent dañu koo tere wane ne ñoom dañoo am seen feet ñu ñu am suñu feet borom bi subhaanahu taala wax na ci alquran ni gaa ñi nga xam ne du ñu seede mboosóor te bu ñu rombe ay caaxaan dañ koy romb rombin wu rafet wu noobul Muhammad ibnu Sirin mu ni azur lu ñu ci jublu mooy feetu chrétien yi Mujaahid jële ci ibnu Abbas mu ne feetu bokkaale kat yi lañ ci jublu ayaadul mushrikin Anas ibnu Malik nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee Madina dafa fekk ñoom ñu am ñaari fan yoo xam dañ ci doon fo jàppee ko feet yonent bi alayhi na leen ñaari fan yi fan yi lan la ñu ne ko fan yi dañ koo tàmmoon di ko feetu jamonoy cedd ba léegi ba léegi ñu wéy ci bàyyiwuñ ko comme jamonoy ceddo la kon li muy teg mooy feetu bokkaalekat yi la mushrikuun yi yonent bi alayhi salaam mu ne ah bàyyi leen ko te ngeen xam ne yàlla soppil na leen ko ñaari fan yu ko gën mooy bésu tabaski ak bësu korite beneen bi mbokk yi ñu bëri dañoo jàpp ne feet duggul ci buntu diine waaye ci buntu aada lay dugg alors que feet dugul ci buntu aada waaye ci buntu diine lay dugg feet diine la feet dafa bokk ci diine diine bu nekk dafa am feetam boo xam ni ñi ca nekk foofu lañ leen yemloo loolu mooy seen feet lañu ñu war a feetu leneen waruñu ko cee dugal loolu moo tax dafa bokk ci jaamu yàlla yi feet dafa bokk ci jaamu yàlla yi loolu moo tax suñu borom mu ni xeet nekk defal naa leen jaamu yàlla goo xam ne ñoom dañ koy jaamoo yàlla ibnu abbas bi mu koy firi firéewu ko jaamu yàlla dane iidan maanaam xeet wu nekk defal naa leen feet goo xam ne moom la ñuy feetoo da ca jaamu yàlla borom bi dellu waxaat kenn ku nekk ci yéen defal naa ko yoonam woo xam ne moom la war a jaar yonent bi alayhi salaam waxoon Abubakar ne ko xamal ne nit bu nekk am na feetam li kulli qawmin min nit ku ne am na feetam wa haza iiduna lii ñun mooy suñu feet te loolu bisu tabaski la woon borom xam-xam yi dëppoo ci saxaaba yi ñu ñëw seen ginnaaw ba jamono jii ne amul wuute amul borom xam-xam boo mën a génnee waxam maanaam koo xam ne jàppee nañ ko xam-xam nangu xam-xamam di ko topp mu mën la kaa daganalal amul borom xam yëpp dëppoo nañ ne dafa araam dagganul jullit ni di participer ci feet boo xam ne du seen feet rawatina feetu ahlul kitaab yi parce que feet la boo xam ne dañuy feetu ne doomu yàlla la ñuy feetul loolu doon loo xam ne lu rëy la beneen bi mooy Omar ibn Khattab daana wax ni bu leen dugg seen bu leen dugg ci li nga xam ne mooy église bokkaalekat yi rawatina ci seen bési yi mu ne parce que bés boobu merum yàlla day wàcc ci ñoom te boo fa nekkee mer mi wàccaale sa kaw parce que dañuy dañuy feetu doomu yàlla la ñuy feetul di ko bokkaaleel yàlla imam Malik mu ne boo leen gisee ñuy jël bato wala ñuy jël gaal wala benn moyen de transport di dem te mu leeral na ñoom moyen de transport bi ñuy jël dañuy dem feetu ji li nga xam ne mooy seen feetu diine la ñuy feetu ji mu ne bu ko bokk ak ñoom wàccal alimaamu Malik mu ne bu ko bokk ak ñoom wàccal ñu ne ko lu tax mu ne parce que merum yàlla day wàcc ci ñoom bi ñu yéegee ba keroog ñuy wàcc te boo ci nekkee merum yàlla mi ah buy ñëw mën na la caa fekkaale léegi nag suñu borom door laa fay sa yéene loolu moo tax mu ne na ko moytu mbokk yi kon li dal li leen dal ñoom seen diine nga xam ne dañoo changé wëlbati mu bëri ay njaxas jullit ñi tey ñu bëri ñu ngi leen topp ci loolu li ñuy feetu ne mooy 25 décembre ne Isa ci la juddu alxuraan da koo dàq borom xam-xam yi màcc seen xam-xam màcc ci wàllu histoire dañ koo dàq li wér mooy Isa judduwul ci Noël judduwul ci 25 décembre lan moo tax mooy alxuraan dafa saxal ni Maryam bi nga xamee ni ëmb bi da kaa sonal ci suratu Ali Imran ak ci suratu Maryam bi nga xamee ne motu gi sonal na ko. suñu borom dane ko ñëwal ba jege ëkk tàndarma gi soo jegee garabu tàndarma gi ngay gësam ko boo gësëmee li nga xam ne mooy ay tàndarma yu tooy dana wat tu saaqit alayki rutaban janiya su ko defee nga lekk ci tàndarma gi boo ci lekkee dina arrêté métit gi mariam daal ciy lekk loolu ma tax gaa ñiy faj jàngee ci loolu jëlee ci li borom xam tafsir yi wax ni jigéen bu yégee ne toll na état mu jël tàndarma di ko lekk ba pare di contrôler suukaram suñu borom dina ko yombalal mu wasin wasin goo xam ne gu sedd la du am jafe Mariam tàndarma googu la lekk métitu moto gi daal di bàyyi mu toog tuuti daal di wasin boroom xam-xam yi xam tàndarma xam nañu tàndarma du du ñor période seddaay du ñor période seddaay te cinq 25 cinq décembre wala Noël toujours seddaay la mës di dajeel du dajeel période tàngoor loolu nekk preuve bu dëgër bu authentique buy dàq ne Isa judduwul ci cinq décembre judduwul ci Noël rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana waqina azaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum rahimakumullah أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءها السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقى بقيا دنياك دعا أسبابها واهنأ بساعات الصفا واملأ كيا